Tiwaawan day dem burdu bi day dem Tiwaawan wala day dem Touba wala day dem ci benn xew laa moo ngi concocté loo xamante ne parents yëgul ci noonu ma jox la tamit beneen exemple kii nga xamante ne mooy capitaine bi bokk ci capitaine bi organisé départ bi moom d'ailleurs jamono ji moo ñuy en garde à vue ca brigade de recherche bu Saly moom kat doomam kat doomam sont introuvables fu mu nekk nii donc d'après information yi nga xamante ne sax mën nañ ko baaxee suñuy téléspectateur ak auditeur mooy lui au total il a encaissé dix millions de francs fa pour mun a amal bile euh, euh, voyage bi nga xamante ne jamono ji xalifa drame la fii ci di Mbour seulement dix millions de francs CFA moom moo moom moo d'ailleurs justement euh, Khalifa peut-être di ngeen jot sax communiqué bi loolu à à l'instant ci plateau bi ngeen teg noonu mooy ah. communiqué conseil des ministres génn na on a vu que le pré le président de la république Bassirou Diomaye Faye originaire du département de Mbour fii la dëkk Mbour la Mbour la Mbour Mbour mooy basom Mbour mooy dëkkam bizarre na lool depuis dimanche ba léegi liy xew amul benn tweet boo xamante ne le président de la république Bassirou Diomaye Faye def na ko à l'endroit de ses frères et sœurs qui sont décédés ça il mhm. département bii la dëkk Mbour jaleñaaw bii donc tey ay rakkom ay ñii ay magom ñii ay sëtam parce que am na ci xale yu ndaw ñoom ñoo génn àdduna donc bizarre na loolu depuis dimanche ba léegi dégguñu gisuñu tweet gisuñu benn ministre bi nga xamante ne de la république. Alioune Badara taal na otom ñëw au chevet. Alioune Badara population loolu aussi Fatou Abdou beneen inquiétude la boo xamante ne population yi am nañ ko fii ci euh, diwaanu Mbour xel dal na parce que am na benn communiqué à l'instant conseil des ministres boo xamante ne jaale nañu famille euh, victime yi alors Khalifa pour euh, terminer euh, mooy situation fu mu nekk nii les recherches se poursuivent ñuy jaajëfal marine nationale bi nga xamante ne ñoom ak direction de la surveillance des pêches ñoom ñooy amal les recherches gis ngeen depuis dimanche ba léegi nelawuñu tooguñu ñoo ci waax yi di wër gisoo ñi nga xamante ne les quatre corps yi yi nga xamante ne à l'instant même ñoo leen découvrir ci waaxu ngàppar wi lañ leen lañ leen repêché donc euh, doy na waar mu doon situation bu métti métti boo xamante ne jamono jii ñëpp a ngi koy jooy di profito xalifa euh, ci occasion bi di jaalee honorable député Sira Ndiaye bu tefes parce que moom tefes ci boppam elle a a perdu là-bas ses ci li nga xamante ne mooy drame bi am nii à Mbour mu doon drame boo xamante ne jamono ji tout le monde réclame un deuil national par rapport ak euh, métit bi nga xamante ne moom la waa Mbour di dund Khalifa Sonko nekk faatu euh, correspondant Sen TV Zik FM bi nga xam ne moom moo nekk fële ca ca ca diwaanu Mbour muy lu tiisan bu fekkee information bi mu joxee léegi rek ni ko Boubacar Seye waxee noonu lay noonu lay ame mooy bilan bi mën na wéy di li nga xam ne mooy mooy euh, di di yokk exactement deux cent personnes. deux cent ñoo newoon ci gaal gi. voilà voilà bon gisuñu ñu bari. je mm. que ne on peut s'attendre <laughs> à tout le temps ñu repêche ay corps. moom mu mel ni euh, euh, silence assourdissant bi nga xam ne moom lañ doon jiiñ euh, autorité yi fi mu nekk nii dañ na Alsane. conseil des ministres Bamba waaw da dinaa ñëwaat ci ci ah, moom. ñu ñu réagir ci réaction bi nga xam ne moom la président Bassirou Diomaye am ci communiqué conseil des ministres mooy di massaw ñi nga xam ne ñooy ñoo ci ñooy famille si seen doom ñàkk seen bakkan. mënoon na gën a teel. Mhm. Euh, parce que déjà rek bu ñu amee quatre rek waroon na mën a euh, bu ñu yëgee affaire rek waroon nañu mën a jël les dispositions. mais malheureusement pourquoi même pas même un déplacement sur place. mais loolu la cest su fekkoon sax Mauritanie la ñu mën a wax mais c'est-à-dire c'est à Mbour je pense que Mbour c'est c'est à. c'est à 70 kilomètres. exactement kilomètres de mm. Dakar pratiquement. 90 mm. kilomètres donc jàppoon naa ni véritablement su mënuloon déplacer à la limite sax mënoon na tuite sax moom pour se solidariser avec les Sénégalais euh, également. Mm-hmm. parce que Macky Sall tamit daawul. daf doon yéex réagir dañ dégg dara am ca bitim réew. dañ jàpp ne sax xëy na ñu def yëpp dañuy xaru sax demoon na ba dégg discours yooyu je pense que aujourd'hui pour man euh, c'est inadmissible. sénégalais ak bu mu mënti condition yoo xamante ñu dramatique bu ñàkk donte benn la sax je pense que le président mérite euh, de élever la voix au moins pour ne sax pour pour dalal xel yi mais également pour montrer que également pour jox ko solennité boobu noonu parce que doomu aadama dafa fort mais malheureusement au Sénégal euh, nit dina dee ñu bëri nañ dee on attend toujours parce que mënoon nañ ko xaar feneen mais pas communiquer pour man euh, euh, mais mais pour pour rajouter li li il faut ñun mm. ñuy am culture boobu nga xam ne dëkk tubaab yi moom la ñu am quand il y a un accident doo nga gis. ki nga xamante ne moom la ñu dénk mbir mi dina waaxu dem ba ci bërëb bi. Ah. et drame yu mel nii parce que bu ñu waxee plus de cinquante c'est un drame. rawatina mu nekk benn localité boo xamante ne ñu ci bari foofu la ñu jógee foofu la ñu bokk ñu ñàkk seen bakkan. mais moom la moom la Alioune Badara Sonko wax léegi wax na ko léegi ah. on n'a pas encore les chiffres exacts. mais bu ñu sukkandikoo ci moom mi nga xam ne mi ngi ci bërëb ba ni nga ko waxee quand on parle de quatre-vingts morts on attendait que pas avoir peur Alassane wax na ko ñun dañu doon toog fii di wax ne pourquoi lii am le président Macky Sall tuuteewul pourquoi lii am le président Macky Sall demul et autant on le aujourd'hui mm. pourquoi lu mel ni am un accident boo xam ne am na démb ci fajar fa nga xamante ne mooy diggante xombal ak ndàngalma on nous parle de plus de vingt morts et li ci li ci doy waar moom mooy ñi faatu une vingtaine de morts dañu lakk parfois aussi le degré de l'accident dañu leen a denc ne foofu la ñu lakkee parce que dañu nekk ay doom même leur famille ne maanaam dindi wut métit waaye dana ko wàññi rawatina une autorité qui se déplace sur les lieux et ce qu'on attend de nos autorités quand je dis susciter l'espoir ouais. on ne peut pas dire à ce régime que ne la question de l'immigration clandestine yéen da ngeen koy régler tey tey tey mais il le cap et les perspectives fan la ñu jëm lan mooy perspective yi mm. mais surtout bu événement yu am yi amee qu'il soit qu'elles soient plutôt ces autorités les premières ci bërëb yooyu ba sénégalais yi sentir que ne ñii kat ces questions na il faut pas avoir peur c'est pas parce que c'est un drame mm. que ne yow di nga jàpp ne état nga wii waxoon nga lii waxoon nga waroo dem mais da ngay dem jàkkaarloo ak sénégalais yi wax sénégalais yi dalal leen yëg la seen wet yëg la seen wet sentir la seen yeeg ba nga xamante ne boo leen diggee ne le kat man lii mooy perspective lii mooy cap bi di dinaa ci dem c'est vrai c'est bon de communiquer dans le dans le conseil des ko mais aussi loolu c'est un pas fa c'est un boo xam ne je pense que les autorités war nañu dem taxawu ces familles yi nga xamante ne aujourd'hui elles sont endeuillées te li ko waral moom mooy la question de l'immigration clandestine. waaw. Ah. cellule am solo. Mm. pour avoir les bonnes parce que même les journalistes amuñ fu ñuy rabattre. pour am l'information qu'il faut effectivement ban chiffre lañu am bu exact. parce que aujourd'hui war na am déjà benn point focal boo xamante ni qui va centraliser et ça c'est un parce que boo nee situation de crise dafa am ça veut dire que affaire dafa xaw law dafa laaj disposition. prise en charge psychologique. si sax ay jigéen ay ay yaay seeni doom. des ci ndox mi mun na mun nay soxla hmm. moo tax ñu doon xaar ñu yu mel nii muy am. Hmm. mais malheureusement doo gis koo waxal du am benn communication. du am benn du dul ay ambulance jël ay corps yóbbu jël combien mais c'est pas ça une crise une crise c'est beaucoup plus profond mhm. parce que parce que li ko dalee fi nga xamante ne foofu la am répercussion mhm. loolu yëpp nag chaîne boobu yëpp da nga ko war a jël en compte par en place mais malheureusement au Sénégal souvent dañuy xaar parce que communiquer véritablement pour man se communiquer là véritablement ça n'a pas en fait loolu lañ doon xaar par rapport ak dayooyu li nga xamante ni ba situation bu nekk ni non seulement ci géej gi mais également ci tali avec seize morts qu'on a eu également yoo xam ne c'est des morts calcinés cest yoo xamante ni dootuñu gis seen seen ay pourtant dañ leen tàggoon dañuy dem ñëwaat hmm. malheureusement bi et loolu dafay laaj un accompagnement psychosocial boo xamante ni mun na jël ay ñu ko di xeeb donte benn des autorités loolu nag hmm. foofu la ñuy foofu la ñuy xaw soog xamee ni véritablement programme rek kon yaakaar naa ne kon génn nañ ci li mal. yanaayu en tout cas que les autorités dinañ am occasion wu ñu ngi doon annoncé ne président war na def adresse à la à DPG ñu ngi koy xaarandi euh, ndiki àjjuma fële ci assemblée nationale peut être ñu rectifier le tir ci wàllu communication massawu wala installer.